mar seigne Moussa Gueye Mara suma ma ni Yalla bu ndawla yalla bu ndawla yalla bu ndawla ah di seigne bi. suma ma ni yalla ndax li man damay def dindi damay def di dindi ni ma mënee xam-xamu asrar, mané a nit ki non la mané yaq nit ki. manam man nga yaq nit ba dégrader ko ba dootu am dara. mané man ma gis fi légui milliardaire bo xamanteni yorna aduna ak la ci biram man seigne Moussa Gueye Mara ma xol ko bam neex ma mën naa ñak ñàkk loolam yor wat ko xamal ko aduna andi wat ko fim nekkon manam nga dégrader ko ba nopi wan ko aduna ba nopi gradé wat àdduna ba andi wat ko tégat ko. loolu Moustapha gey Mara kep lañ dégg mu di ko. président bu ma neex président bi fi nekk tay suma neexé wacc ko. président Diomaye fay suma neexé la wacc ko. <laughs> baye ngeen dafa mystique. non sëñ Moussa kenn du ko mën koo jaay mystique sëñ Moussa dafa misik ba tok sëñ Moussa man lima ma xam limay genn ci ay semaine bi li ma genn ci sarax ken da xam lim tollu boko boo ay million lay don di dem kon sëñ Moussa misik mom ci mom la fekk bax lolou lu wér suñ borom ba may yoni li xewut xana xamoo maa ngi lay leral ben bir alquran laa tim lisi la ilaha illahu loxom tay loxoom tey fii laa ko def di ñetti yon la dem delsi ñetti yon nga ñew ci alamu adina bi. billahi wa ba ti dem naa ñetti yoon del si maanaam judd nga ñetti yoon faatu nga ñetti yoon dudd naa xam naa li si bàmmeel ñëwaat naa te giñ naa ko Serigne Touba su ma demee damay ñëwaat yow doo koy doo ko doo ko fi jóge du ma ko fi jóge mission rek bu yàlla dogal fajkatu aajo nga daal di fekk Dakar Dakar gu fa nekk nga ni yow yaa ko xar te it ñi ko xamul man maanaam xamuñu ko waaye biñ ñëwee fekk fa sa ay bokk ñëpp confirmé nañ ko loolu noonu la demee Dakar gi maa ko gu complet la woon gisee coow li bëri woon appel yi xaw bëri coow li bëri bëgg moon sax génn ne maa ko xar waaye barke Cheikh Ahmad Bamba kamil Alxuraan laatim daqaar yooyu maa xar te mu ngi xaar boori une heure deux heures daqaar googu nekk naa fa ñeent fukki guddi yoo xamante ni sama gone fa laa daan jullee takkusaan fa laa daan jullee waxtu yi bi ma demee ba suñ borom fekk ma fa suñ borom xamal ma ne yow suñ Moussa Gueye Mara fa gur daan àgg àgg nga fa. ne ma loo gën a bëgg ma ne ko nga may xaral daqaar gi ma fay jàppo si diggante bi ba ma xam ne man àgg naa si saa sa waxtu waa giñ naa ko Serigne Touba la fa ñu xar ko. li handicapé da nga koy doxal. li gën a jafe laay def xool handicapé ba mu nekk ma ne ko jógal dem. ab handicapé tey jii bu ñëwoon boo ko jógal dem. nit ko lafañ laax ma ne ko jugal dem mu jug topp ma. kon xanaa silmaxa tax taxut non loolu loolu loolu moo gën tuuti li may def man doomu aadama su ma ko xoolee xool xool xool xool bu ma neexul rek man Serigne Moustapha Gueye Mar àjjuma fekk dama koy dindi kon loolu mooy boo bëggee yàq nit léegi yàqu ko. loolu mooy li ma la wax sànq ku bëgg defar defar ku ma bëgg yàq yàq la ministère yi nañ ma moytu ak nit àdduna yi du ma n'importe qui na nit ñi xam ne siñ mu soogee maa nekkul gone mu ngi waajal loo xamante ni réew mi danañ toog weewu yàlla kenn du faatu. réew mi danañ toog un mois yoo xam ne kenn du faatu. maa ko maa ko dimbale jàmm ñi. ñi xam-xam feeñ ne ba yooyu ban jamono lay doon. réew mi laax weer wii ñu jëm dama nekk ci ay liggéey suma ma ci liggéey yoy weer wi ñu jëm nañ tok un mois bo xam minute faatu. actuellement ñu ngi mois des souliers donc août bi mo nga bëgg wax. nañ tok weer wo xam kenn du faatu kenn du fébar kenn du def dara. xana xamone malakal mawti rey ni ngay liggéey bu ko defut mission bi non yaa ko tuddu way moom xamna na xamna na na kan moy sim sagi mara xamna na doy bam àgg. Moustapha loo gisal réew mi ci diggante Jomaay ak Sonko coow li bëri na. dañuy tàqalikoo incha allah. Moustapha Gueye nee na Jomaay ak Sonko dañuy tàqalikoo. ñoom ñaar seen biddu dëggoon woon te and bi seen ànd dëggut dañuy tàqalikoo maa ko wax. ay weer si kanam laa giñ naa ko Serigne Touba Sonko def déclaration dal si ko Jomaay maa ko wax. kër Bougane Gueye mu ngay tas ndax journaliste yaa ngay bàyyi rek loolu loo fa def. kër Bougane Bougane na ma woo Bougane Gueye moom xam na xam na dëkkab Serigne Moustapha Gueye xam na ngàcc jàll si na ma laaj ko Serigne Moustapha Gueye lu ma ko wax takkal téere lu ma ko wax day am. léegi këram doo ci wax. na ñëw ma ma ma ñëw ma am li ma ko liggéeyal. dañ ko tuddee sax kër dof yi léegi. waaw man moom yàlla damaa dogal leen mooy amna mbir yo xam dama ci bëgg sori sax ndax gone yoo wax dëgg yalla nekkutuma gone yi tok fi di tudd ay gone yu ndaw yi ndax ñi may jëflante ñoo mo mo moo ëpp ñooñu man limay limay wax sank rek man limay may jokkoog li may nit ñu bari man nak lu ci ëpp ay tubab la jëflanteel. Ah, ñoom la ñaanal moo man man man yu bari yu bari du ci bëgg di di sori. xanaa di nga mëna wax élection États-Unis yi ñu jup kan mo koy gagné. inshallah ta dama dëgg bee dem lool teunk no pare daggal nañ ma bee ci dama dem. digënté Donald Trump ak Joe Biden kim samp incha allah damay dem. ki nga wax kan moo incha allah interview foofu laa koy defee. ziar kontaane Konaté la bon maa leen bëggee di leen ziar di leen wax ngeen gën a partagé gën a maa ngi doon wax imaam ñu ngi doon coow coowal imaam Dramé fan yii yëpp ak li wax yonent bi mais man dama am vidéo bu ma gis <laughs> vidéo boobu moom xale la de xaw ma nan Moustapha la tudd dëkk Touba. moy boy bi waxone fan yele war na len ko sax moy boy bi waxone fan yele maa ngi leen wax ngeen gën di abonné mais ngeen di partager vidéo yi mais de len aimé vidéo yi nak c'est très important maa ngi lire commentaire yeen ñep ñëpp di leen jaajëfalaat bu baaxa baax fan yee seetaanoon na ben vidéo mu ne yonent bi fi la togon xom moy boy bobu c'est que boy bi lu mu wax ni dafa graw de <laughs> c'est légui man lima jaaxal moy boy bi limu wax ni wallaahi li tax mu am fitu wax ko loolu moo jara càmbar waaw maanaam man booy bi du ma ko attaqué booy bi du ma ko càmbar parce que man dama jàpp ni victime victimu société bi la maanaam victimu Sénégal la moom dafa bokk ci victim yi booy bi victim la victime la ci environnement bi muy dund victime la ci ci euh, peut-être confrérie bi mu bokk victime la ci li muy gis ci penc mi parce que lii muy wax ni li tax mu këru ko mën ko ba di ko wax daf ko daf koy dégg ñu dugg ay mag di koy wax wala ñuy wax lu xaw a niróog moom ah bu gisee mag mu toog tuddee boppam imaam ne yonent bi teg ci nangam da daan da daan nangam te loolu du dëgg. te bu doon dëgg sax war nañ ko am gàccee wax ndax ku nekk sa bàyyi mu ngi daan def lo xamanteni ni xam nga ko te wo ko wax ci pénc mi ndax japp nga ni rafetul ci deram ku nekk xam nga sa woy woy jur mu daan pratiquer lo xamanteni te dundatul nga xam ko te wo ko wax lu rafet rek ngay wax ci ginaawam ngir yëkëti sa bop ku toll ni yonent bi même boko xamalon xamaloon leneen sax ludul li yàlla ci mom ak liñu jang ci téré ak lim ñu wan muy khairul khalq sayyidul saydu sayyidul alamin bàyyi fatumata bintu rasul nga xam ni yàlla mu ne ku ko roy baax royal leen ma ko mooy ngën gi mbindéef ku xam leneen ci moom sax waroon nga am gàccey wax ko léegi su gisee ku tuddee boppam imaam toog waxal boppam ne kàddu yooyu mu gis ku naan man damay karaate yàlla gis ku naan man damay mbot yàlla gis naan yàlla yabu ma gis naan malaaka yi yabu ma gis ku naan yàlla bu taxawee ni yonent bi taxaw ni sama maam taxaw ni ma romb ko dem ci sama maam gis ku naan ñun nitu yàlla baax na loolu waaye doon doon ñun ay nitu diw lañ ah mais yooyu yëpp su koy gis gis ku naan man yàlla laa gis ku naan sama sëriñ yàlla la gis ku sama sëriñ du moroomu yàlla su taxawee ne moom yaa yàlla la maanaam nit ki lu mu xamul xam nga tey wax naa ko ba ma koy wax defe naa cheikh al la defe naa Baye la euh, sama benn xarit bu ñu naan sëriñ maam sëriñ sëriñ maxtaar ndaw taalibe Baye ñas la seigne Maxtaar ma ngi lay nuyu dekk fële ci Medina Baye daf ma netali ben mbir mu ne dafa am kuñu indil won ku don saga biñ ko waxee seexal islam dafa dem wo ben xalé ci daara ji ne ko saagaal xalé bi munul saga mu kon fa mu nek ñamu gis mag ña nañuy def lolo tax mu meun li mais ki fi mu nek xamul luy saga ndax gisul ku koy def exemple boobu laay joxe ci xale bi li mu nekk di def nii ñun ñëpp xam nañ ni xale bi li mu nekk di def nii ñu ngi koy gis ci pénc mi saa su nekk ay dérapage ñu di ko wax yàlla di ko wax yonent bi comme li ma wax rek xale bi tey boo ko doon faye ay milliards du ne man dammitu sëriñ diw laa du ne man daanaka maag sëriñ diw ñoo tolloo wala ñoo yem du ko wax mais dee na nee na moom daanaka yàlla la day day def di dindi ah déggoo fi ñun am nañ ci ñoo xam ne de am ñun am nañu ñu fiy jiñ loolu di def di dindi ah, boo nee mu taw mu taw boo nee loolu ay jikko yàlla la te ñun ñu ngi koy askanele ay nit kon boobu su sañ amee sañ-sañ taxaw ne man daanaka damitu yàlla laa te ñeme wu tax man daanaka damitu sëriñ diw laa daanaka man damitu diw laa bu tax sañee di taxaw di def wax yi waxeem yu reewaane yii mais parce que daf kaa gis ci pénc mi léegi ñu ne booy bi fan la dëkk ñu ne Touba la dëkk Touba mooy fan mooy fi xaadimu rasul dëkk borom antal karimu anal xadimu sew sew yoyu da ngay nan lan mo waral li di am ana ñu donu mag ni ana ñu yor ndono li ana ñu mujjé pousso bi li ni est-ce nit warna dekk bir Touba ak ñu xam digënté Serigne Touba ak fa mu tek yàlla sunu boroom Serigne Touba fa mu teg tek fa alquran tek fa malaka yalla yi tek fa lepp loo manam moy daj depp gi dal Serigne Touba fi mu tek yalla moo tax sax mu am lii mu am jarul sax ngay laaj kan mooy Serigne Touba fan la tegoon yàlla ak fan la tegoon Rasulullah xoolal li mu am rek ci kaw suuf ba ku maanaam maanaam ku ko tudd sax te tedd moo tax nga gis ñu di ko mbubboo ñu bari mbubboo di mu bari di ko mbubboo di ko ceeboo di ko mm, euh, di ko dépensoo di ci def lu ne waaye lépp luy taasal yoon wi luy taasal turu Serigne Touba. lépp lu nga xam ne bokkul ci sëriñ Touba ci lañuy xëy di ci gont waaye xam nga ni xale bii lii mu yëkkati di ko wax dans un pays normal xale bii war naa wax wax yu rëy yii ci dëkkub jullit di bàkkoo sëriñ Touba di waatee Serigne Touba dëkk dëkkub sëriñ Touba ñu ne dëkk bi am na ay kilifa ñu ne dëkk bi am na ay mag ñu baax ñu ne dëkk bi am na ñoo xam ñoo téye ndonal mag ñi ñuy seetaan xale bu ndaw di yëkkati kàddu yi di ko dara di ko teg yàlla sunu borom. te bu doon benn yoon la wala ñaar yoon mais maanaam tey booy bi lii daanaka il est maanaam liñ naan il est un coutumier des faits moom booy bi daal lii def na ko yoonu tool léegi ñun du ñu toog ñu xalaat ñun ana sunu diine sunu lislaam fan la nekk léega gars parce que dama gis vidéo bi rek moo tax sax gisoo euh, euh, dama gis vidéo bi rek ma jaaxle quoi parce que man yooyu du koy xool lu bari. mais dañ mako ya, envoyé ma xol ko mané li mënuma ci baña baña wax ngeen di ngeen gis xalé bi limu wax wax yi <laughs> non Sénégal Sénégal dessé nañ lu bëri sunu ak suñu borom ñun bañ faaso diiné lañ yor ñun bañ faaso ñun ay faaso yépp faaso doomu aadama lañ ñun wa Sénégal waa waa lii nii magum jëmm sax war naa am fitu wax ko ci ay pénc waxuma la xale bu ndaw gis ngeen xale bi propos yu mu wax man bu ko neexoon sax mu naan man am naa xam-xam damay ñaanal tiit si lii parce que gars yi koy def loo leen wax ñu ne dama koy ñaan damay ñaan damay donte ñaan am na waaye moom décrédibiliser nañ ñaan ba képp ku taxaw naan man damay ñaan damay ñaan sax nit ñi dañuy dañuy seen xel day téye ci yow ndax koo xam ne lépp loo ko wax mu ne dama koy ñaan mën naa ko mais xale bi moom. kii moom wax dëgg yàlla liñ naan jommi amul heure man bi ma seetaanee vidéo mi damaa jommi léegi ko question yi ma posé nag mooy li tax mu ñeme koo def man damay def damay def analyse bu profond man du ma ñëw rek ci ci forme bi man maa dem ci fond bi lan moo waral xale bi nekk ci condition yi parce que xale bi victime la xale bi victime la de gis ñu koy wax lu nekk mais xale bi victime la xale bi yoon topp ko ci daara victime la victime société sénégalaise la victime soi-disant diine ji ñu yor ñun Sénégal victime environnement bi mu nekk la parce que nee naa leen wax yu gën a ngande yi dégg na ko ci ay mag ñu wax ko ñu ñu tuddee ay kilifa ñu wax wax yi gën a ngande yi léegi li tax nag ñu naan xale bi lu tax arrêté wuñ ko kilifa yi war nañoo kilifa yi dañ lan la ñuy wax xale bi ñoom kilifa yi ci boppam ci la xale yi ci ñoom ci moom ci ci kilifa yooyu ñu tuddee kilifa ci la déggee wax yu rëy yi ñu di ko jëgmal ya di jëmale yàlla di ko jëmale yonent bi <laughs> reer ba regg taxaw wax yàlla loo deex xale bi di teg bëtam léegi léegi yéen yaakaar ngeen yéen ñi naan kilifa yi dañoo war a wax ak moom xale bi ban kilifa mooy wax ak moom fii Sénégal boo nee benn ñi ñu tuddee kilifa koo ci ku ci dara a wax ak xale bi ci waxam yu rëy yi ñu génneel la sa vidéo yow boo waxoon ak yàlla wax wax bu gën a rëy xale bi wax yow yaay source d'inspiration sax xale bi man xam naa pili da quatre ou mënuma wàññi sax ay ñoo xam ne kilifa lañ leen tuddee wax nañ wax yu gën a rëy xale bi yu wax wallahi wa rabbul kaaba ñooñu ils sont mal placés parce que xale bi ci ñoom la déggee waxam wax yu rëy yi wax yi ñàkk teggin yi jëmale ko yàlla jëmale ko rasulullaay wala jëmale ko maanaam jëmale ko ay malaaka yàlla en tout cas lii moom ah man de wax dëgg yàlla amatuma ci solution parce que mbuum nga ca mbajaxaan nga la bañee ñun nag lii la ñuy dénoncer parce que xale bi lii mu wax nii ñemewu ko wax ci benn turu sëriñ xalaatu ko sax ñemewut a tëkkal boppam benn sëriñ ñi bu ñuy tudd fii Sénégal waaye mu ngi tëkkale boppam ak yàlla ñemewut a toog fu mu toogoon keroog naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na fii toog ñemewut a wax loolu jëmale ko ci benn sëriñ fii Sénégal <laughs> wallaay ñemewu ak waxu reewaane gi mu ko waxee yonent bi démb fii la toogoon ci non nañ nañu ah man de wax dëgg yàlla ku koy sauver laa gisul ndax bu amoon ay jur yu mat wayjur du ko def su amoon ay kilifa yu mat kilifa du ko def te ñi ñu yaakaar ne ay kilifa lañ ñoo ko war a gindi ñoo war a wax ak moom ci wax yi rëy yi muy wax ci xale yi ci xale bi ci ñoom la déggee wax ji kon xale bi ku koy dimbali kon au lieu ñuy attaqué xale bi dañoo war a yërëm xale bi yërëm ñu ñun yërëm suñu bopp ñaan yàlla yërëm ñu ndax société bi ñu nekk victime lañ ci man mi di wax deug bi sax ngeen ngeen ñaan yalla yeureum ma parce que maa ngi koy wax waye am ñu bari dañ may saaga dañ may xas dañ may wax lu ñaaw ndax deug gi may wax arranger wu len ndax ñom tamit ay victime lañ dañ leena nax dañ leena nax dañ leena nax bokalé wax leen ay waxi dof ba ñoom mënatuñ wah waxi nit <laughs> fen nañ len fen len fen len ba mënatuñoo dégg dëgg bu ñu déggé dëgg seen xol day metti ki wax dëgg da len di déranger ki wax dëgg da len di sonal <laughs> maa ngi leen nuyu di leen ziar ngeen gën a ab abonné ngeen gën di partager vidéo yi jaa ngeen jëf